salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna du nuyu mbokk état yi safoo di seetaan Fekh TV amaat mbégte di leen dalal ci seen émission li ci net bi tey nag li ci net bi dafa ala doom dana ma ci ànd sama papa sama xarit waa kii papa mu bàyyi la nga nuyoo. Eh, asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di nuyu téléspectateurs yi di nuyu internautes yi di nuyu waa Sénégal di nuyu jaspora di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi toog di seetaan Fekh TV te ngeen ñaanal leen ñu gën a jëm kanam. amiin papa tay nak émission li ci ne daf la dalal tay ñu bëggoon waxtaan ci information yi nga xamantene mo fi gëna fess mhm. bokku na ci bu mohamed Cissé bi nga xamantene moy mooy le jeune américain buñ bu ñu ko fàttalikoo moo fi nekkon daw euh, ñëwoon vacances ak papam ci janvier bi. Mhm. Mhm. janvier bi ni moment bi ni ni la woon. ñëwoon ak papam fi ni Sénégal vacances ci bu nekkon kaw nak ñu duggoon seen kër mo papam fekk leen fa daal di xeex ak ñoom. Euh, rey ba rey ko moom. ba nga xamantene ne moment bi mu décédé bañ koy yóbbu cimetière ya sax papa mënu woon dem ndax mi ngi ko fekkoon en coma ndax dañ koo gaañoo. Hmm? enquête bi nag ñooy yëpp bàyyi fàtte woon nañ que ni sax loolu amoon na. Hmm. xëy na am na ñu ko dem xalaat mais ñu bëri yaakaaroon ne loolu fàtte nañ ko bu yàgg. Hmm. ndeke boobu gars yi ñu ci nekkoon ba fi mu nekk nii jàpp nañ leen. jàpp nañ gan bi. ñu nekk ñu tolloo ci douze personnes. waaye ci kaw loolu bañ leen jàppee ñoom dañ ne carrément ki nga xamante ne nii moo tudd Amadel. noonu

nos forces de sécurité. Mhm. parce que bu ñu demee ba jàpp lu douze personnes ci gang bu toll vraiment c'est c'est extraordinaire. Ah, nous ngi leen di véritablement di leen gërëm di leen sant bu baax moy force de police et de ah. gendarmerie. surtout gendarme nga xamné ne ñoo enquête bi. parce que enquête bi gudd 1 un an. ñu fexe ba japp gars yi. Mhm. lolu mom vraiment ils sont à féliciter. Mhm. lima ci yok nak moy véritablement dëkk bi lég lég da nga naan xana amul ku fi nek parce que ñëw ba sa biir kër. nga toog ak sa njaboot. Mhm. ñu ñëw attaqué la sa biir kër. gaañ la rey sa doom. nangu sa te ay nangu sa xaalis te ay xale yu ndaw ñoo koy def ñoo xam ne doole rek la ñu am. Mhm. loolu jël na jël jar na jël ay mesures. Mhm. dëkk bi fa ñuy mujjee suñu moytuwul dinañ dem ba États-Unis ku ne di nga wut nga naay wàcc ko sa kër. parce que lii wóorul. rey nañ sa doom yóbbu sa alal gaañ la jaxase sa kër dem ci nii pendant un an ñu leen di wër ba doog leen di jàpp. ñu jàpp ko moom ci boppam bi nga xam ne moom moo joxee lu coup fatal mhm. mu naan du man ak fii la dugg ak effectivement mhm. day weddi parce que mhm. toujours noonu la sàcc boo jàpp mu weddi la mu doon koo mën a jàpp fekk ko les mains dans le dans le sac dana weddi la mu doon mais loolu du lu baax du lu rafet du lu yiw waaw ñaawlu nañ ko ba fa ñaawlu yem te dëkk bi war nañoo mën a wut nag loo xam ne vraiment nit ñi danañ aaru nit ñi danañu aaru les forces de défense et de sécurité nous les bu baax sentir parce que nous nous dans le monde faut que dem dans les grandes capitales du monde doo toog deux minutes trois mu te auto police romb la. Mhm. wala leneen romb la. waaye dëkk boo xam ne politique politique politique politique rek rek rek rek chaque jour. Mhm. nit ñi toog seen kër amuñu jàmm amuñu salaam. Mhm. li ñuy def bés bu nekk nit ñaa ngi leen di jàpp. bu ramas amee ñu jàpp gune yi dóor jàpp mag ñu dóor jàpp màggat ñi tëral. véritablement lii moom war nañ cee wax. war nañ cee wax war sécuriser dëkk bi ba mu saf sap. nit ñi xam ni fii dañ fee war a toog. parce que dëkk bi suñ dëkk la mënuñu koo génn mënuñoo génn di dem feneen kon war nañoo mën a aar bu baax néanmoins ñoo ngi félicité vraiment mhm. ñi nga xam ne ñoo mën a enquête bi ba jàppaleen mhm. mhm. papa wax ji am na solo lool ñu koy yàlla yàlla xaare ko àjjana amiin amiin euh, ñi mu fi bàyyi tamit yàlla may leen xooju amiin amiin papa bu ñu jógee ci loolu ñu dem euh, ci Daouda Ba mi nga xamante ne moom mooy la femme prophète maanaam moom yonent la jàppee boppam euh, dëkk ca Kolda bañ na ba kaaba la tabax mhm. ci dëkkam mhm. ñu koy dem di ko ziyaari jàppee boppam yonent hmm? bu ñu waxee mu ne moom yonent noonu lay namoo ko ne moom yonent la tabax ay daaraam def ci ay xale daf leen di jàngal. Mhm. ci kaw loolu lu tax ñu jàpp ko mooy dafa def détournement de mineur maanaam dafa violé xale. Mhm. xale boo xamante ni 14 ans la am mhm. instant yii nii. kon moment bi mu nekkoon ak moom xale bi mi ngi amoon 12 ans ndax dëkk na ak moom 2 ans. 2 yoo xamante ni mu ngi sàkku xale bi. loolu lañ ko jàppee. ci kaw loolu yaay xale bi ba mu ko yëgee da ko yóbbu police porté ko plainte. ba mu ko porté plainte ñu woo ko mu weddi. mais ci dëkk ba ci boobu gars yi ñoom nee nañ am na ñoo xamante ne nee dëgg la. mais ñoom ñemewuñ ko woon wax. Mhm. parce que dafa am doole foofu noonu. Mhm. daa bokk ci benn secte boo xamante ne nii Mbàkke Ruux la tudd moom moo ko jiite. Mhm. ci kaw loolu ñu jàpp ko léegi papa lan nga gisee loolu. du yoon kooku def na njombe gu rëy a rëy rëy gu rëy rëy diine du ànd ak caaxaan. diine loo ko boolee lu dul diine bi mu war a doon. yàlla dana la nattu. xam nga ni ku toog ci dëkk bi mel ni Sénégal fii mhm. nga xam ni mag ñi nga xam ne ci àdduna bi yëpp dañ leen di nawloo mhm. ku fi am mag yaa ngi kontaan ci moom moom mu mën a dem wut diine boppam mhm. wut kaaba boppam wut ay taalubay boppam loolu doyu ko muy fab ci xale yu ndaw yi di leen sàkku ba ci ami gune kii jar nañ koo tàllal kii dañ ko warul duma ba mu gis buy te lii moom war a dafay yem ndax bu ñii dee xeex fii di sàcc kër jàmbur yi di rey moom ñoom ñoo yem àtte moom yàlla dong ko moom kaaba gi benn képp la daara moom da nga fay jàngale alxuraan waaye seet ci daara jéeg dëkk ya ko wér gën a yo fa gën a jekk nga indi leen seen biir kër depuis deux ans yaa ngi ànd ak benn xale boo xam ne quatorze ans la am léegi kon ba nga koy jël douze ans la am mhm. te yemut ci kooko mu nga ca ñeneen ak ñeneen mhm. waa jooju war nañ koo duma bu mu gus buy te waa dëkk ba mhm. war nañoo taxaw nag jàpp ci yàlla parce que alxuraan foo ko taree lu fa dem alxuraan lu fay seytaane dana fa jóge bu dee dëgg ci yow nañ fa jàng alxuraan wàccewaat fa ikaamil mhm. ngóor soosu nañ ko dàq mhm. parce que il semble sax que ngóor soosu reyoon na fi papaam ca ba muy doog a door mbiram yooyu ah waaw mhm. mos naa dégg ni papaam moo doon jiite mbir moomu ñu am ci altercation ba mu rey papaam daw doog a pour ñëw di fabriquer loolu muy def noonu ci wàllu diine du yoon rafetut jekkut nit ku baax day yem ci li ko yàlla sant mhm. li la yàlla sant mooy julli mhm. jàmmu yàlla jàng alxuraan boo dee murit nga jàng say xasaayit ñépp am jàmm waaye boole ci leneen loo xam ne bokkul ak diine àndul la diine mhm. diine bugg ko ci fii rek ngay mujje waaw fii rek lay mujjee te day doog a doon ñaaw na trop mujjanteelam ñaaw na trop de ñaaw na trop kenn du ko bokkaale ko bokkaale kenn ko bokkaale papa ñu bokkaale gis jëkkër ak jabar ñu mhm. doon xeex xeexuñ sax mhm. ndax góor du xeex ak jigéen ndax moo ko ëpp doole mhm. maanaam jëkkër da koo jàpp dóor ko ba ñi ba ñu dañoo yaakaar ne sax da jam ndax tellement que deret bi ko sangee woon jëkkër ji di wuyoo ci Idrissa Pouye noonu la tudd jàpp jabar ji dóor ko ba police ba mu ñëwee ba mu fëggee néeg bi pour ñu ubbil ko fekk nañ ko moom summeeku na ba changé yére solaat yeneen yére kan Idrissa ku góor ki ku góor ki fekk nañ ko dóor na jabar ba mu sonn ba voisin yi ñoo génn ñëw àcca ñoom ba ñëwee dañoo tiit ba dañoo yaakaaroon ne sax daf koo jam ndax mhm. tellement deret bi nu sangee woon mhm. xale bu jigéen bi mhm. nekk dafa jël dara dóor ko ko ci bopp bi oh. ba police ñëwee fekk nañ ko moom sumeeku na ba ba changé yére changé mbubb changé mbubbam dañ ko yóbbee tamit dañ ko bàyyi mu itam dañ ko yóbbu hôpital bu Thiaroye parce que ne leen ant ak sagom àndu ak xelam ñu mhm. bëri seede loolu loolu waaw loolu moom noonu rek la mën a demee nit ku mhm. àndul ak sago moom mhm. lépp lu mu def lu ne kenn mënatu ca teg dara waaye Idrissa juum na juum gu méttee méttee méttee xanaa kër ga nu dëkk ay mag newu fa dañoo luwe dañoo luwaas la kenn ku nekk néeg nga fa am ku nekk néeg la am xam nga loolu dañuy dellu siwaat ci gone yi ak seeni bagages yi ñuy def koo ci takk mu wuti appartement mais gune buy sëy day nekk ci kër gu mag. Mhm. toog faak mag ñi ñi leen mag di leen surveiller ñi leen mag di leen aar ñi leen mag di leen dimbale di nemmeeku ci lu ñu nekk waaye yow ak sa jëkkër rek mbaa yow ak sa jabar rek ak seeni doom rek ngeen di gune te njuumte day gaaw. Mhm. loolu mu def njuum na lool xam naa ni nag bu dofee it ah léegi mu rokosu de bu dofé mom ah, légui mu daal di gën a kanosu lii bu ko continuer ni dina ko ray ni moom bu ko continuer dina indi lenen mhm. et et c'est pas une raison mhm. non non c'est pas une raison parce que des fois pour dimbale nit ki dañ naan dafa dof mhm. fekk def na njombe go xamné mënutu mënatu caa génn ni dafa dof nañ ko topato ba xam dof la am déet bu dé dof la doguma la sax waye fimné lool dafa bëri da ngay def lu la neex ñëw ne dama dof wala tayu mako ko loolu du yoon dof moom dof moom dañuy xam ni dof la mu yori mhm. kayit balaa dara xew mhm. mais koo xam ne day dem def njombeem gu rëy a rëy xam nga ni kii li mu def ëpp na kii dofut parce que ba mu defee li mu def ba pare daa dem sumeeku daa dem sumeeku kon de yëre ya mu soloon daa taq daa taq boobu lay bañ ñu xam nu mu demee mhm. waaye nag mook alkaati la parce que c'est des spécialistes danañ luqati ba xam mbubb yooyu fu mu nekk dinañ ko xool te dinañu xam nu mu demee day leen muñ kër muñ kepp la mhm. kër da ngay yor sa soxna di ko baal mhm. di ko muñal mhm. parce que loo muñul koo muñalul du ngeen am jàmm jigéen ñi seeni pexe bëri na mu xel rëy na seeni dugg-dugg bëri na seeni bëgg-bëgg bëri na waaye dangay ànd ak muñ dëgg la di fenati di baale di waxtaan di nemmeeku waaye bu dee yow yaay chef de famille ba pare bëgg a teg ci benn yoon rek intransigeant bëgg a tegu ci autoroute à bi dara du la traversé de metti en de temps en temps de temps en de temps en temps di de temps lu ñu am de te ñu leen di yar te ñuy de ci

ku sey da ngay tok ci keur magni mm-hmm. ñu jangal la togg jangal la foot jangal la yaru jangal la teggin jangal la yiw mm-hmm. nga mëna dem sa keur jëkër tok fa bu boba di nga xamni yow mi di nga mëna sey jam rek nga fay am papa wax ji amna solo comme niko sam papa waxe rek nañ muñalante buñ muñalante rek dina neex moy deug nañ muñalante rek euh, moy deug papa ñu dem mm-hmm. euh, genn nak Sénégal jall ba Nigeria euh, la fa xew doyna war torop ndax buñ démé ba papa jël doomam bu am 9 mois di ko sàkku. doomam bu góor daa jël doomam bu góor bu am 9 mois di ko sàkku. jabar ji ji jabar ji moo ko seetlu parce que moo jékki jékk gis doom ji am ay changement maanaam doom bi ci ginnaawam di génn deret yaay ji jaaxal ko lool mu dem hôpital yóbbu doom bi ci la ko médecin bi xamal ko ne xale bi dañ koy sàkk moom la bañ ko ko waxee automatiquement def ne jëkkër ji la. parce que mhm. nee na dërëm gis jëkkër ji ak doom ji des fois mu leen di fekk ci moment yoo xamante ni du ko neex. Mhm. nee na bu gisee jëkkër ji day xam ne carrément fii nii kat am na lu fi xewoon mais moom nee na xelam mosul daj ne jëkkër dina def loolu. ba tax na mu porté plainte jëkkër ji médecin bi appuyé ko depuis boobu jëkkër ji may ko jaam da koo sonal. Mhm. sonal ko di ko dóor ci kër gi di ko di ko toroxal. Mhm. te moom nee na du moom. Mhm. waaye réaction am ci boppam moo jaaxal ñëpp nee du moom. mais day day day day dafay mel ni comme si que ni moom la parce que ni muy réagir dafa doy waar. dafa doy waar dafa mel ni kuñ xabtal. Euh, gis nga li yeb mhm. ça revient à, à au système d'immigration. Mhm. immigration interafricaine moy ki day jóge fi ñew Sénégal ki jóge fee ñew Sénégal on a constaté jamono yi que Nigériens yi bari nañ fi trop. effectivement c'est pas de la xénophobie contre ma kenn. Mhm. waaye bëri nañ fi bari way bo xamné ñu ngi sàcc compte jambour yi. deug la ñu ngi violer sunu dom yi. deug la ñu ngi wër ci dëkk bi ay sàcc lañu yoo xam ne pas tous quand même il y a toujours des brebis galeuses dans un groupe mm. pas tous mais xam nga ni lii ñuy def nii mm. lu ne ñu ngi koy def ci dëkk bi foo leen fekk yor nañu seeni église u bopp yor nañu seeni groupement bopp yor nañu seen communauté bopp mm-hmm. loolu bu amé xam nga ne xalé bu am 9 mois di gor gor di tek ci ngay bàyyom di ko sakku ba xalé bi dem di génne deret té kenn yogu ko ak caay-caay mënta weesu loolu mënta ko weesu koku mom réew mi ne ci taxaw ba mu set wicc ñoo ñëpp ñu jëlee leen fi. parce que nag Sénégal am na jàmm am na salaam waaye bu saay-saay duggee ci kër boobu wutul jàmm dana fa jeex. ñii ñëpp nañ leen fi jëlee. kii xam nga ni pédophile yi gën a bon sax moo leen gën a bon. kii du nit ku yiw du nit ku baax te boo demee ba ca biir sax du jullit parce que am na loo xam ne ku am diine doo ko def. sa maman a bien fait de porter plainte

Qui jaru sax moy tok Sénégal il faut le rapatrier illico presto Qui ne fi jógee dem parce que ki ko bon la def na ko ku def lolou so te bis bu egsee ci doomu jàmbur yi dina métti lool. kii moom jarut mu fi toog na dem na dem na dem. na dem na dem dañuy laajte sax ndax nit la ndax am na yoo xamante ne sax. buñ ko mënta tëj giirub dundam na génn dëkk bi. Mhm. na génn dëkk bi am na yoo xamante ne sax nit du ko def. kii boo war koo xalaat sax amaana ba koy def papa ñu ngi suñu njeexital émission. Ah. Euh, dañuy mujjee rek ci point bi nga xamante ne ni fi nekk nii moom la ñëpp di waxtaanee ndax moo moo fi récent. Ah. Mhm. mu génn ci démb maanaam couvre bi nga xamante ni dañ koo yokk huit jours Euh, ñu ne euh, le 6 janvier bi nga xamante ne moom lañ génn. Mhm. dañoo defoon euh, décret. Mhm. maanaam pour def couvre-feu. Mhm. buy commencé vingt ba cinq heures du matin. couvre-feu bi nag jeex na. douze jour yi jàll na. ba mu jeexee tamit ku ne xam na ne. assemblée dafa defoon benn loi ñu vote woon ko. Mhm. loi bi nag benn parti gagné ko benn mhm. parti bi gagné ko. Mhm. léegi mais validé guñ ko amaguñ validation bi. maanaam loi bi amaguñ validation bi. léegi ci diggante loolu ñaari gouverneur yi nga xamante ne nii. Euh, ñoom la affaire bi laal mooy maanaam mooy gouverneur bu Thiès. ak gouverneur bu Dakar. dañoo waxtaan. ba déggoo que dañuy yokk couvre bi huit jours. bañ ko waxee tamit. ñu validé ko. Mhm. ba tax na démb euh, Félix maanaam suñu euh, ministre de l'intérieur. Mhm. génn wax validé kan yi dañuy mhm. yokku couvre-feu ci huit jours. ba ba ñuy amaale euh, validation wu loi nan nga ko gisee. man Sénégal damaa jaaxle man xamatuma ci Sénégal dara Sénégal bu jëkk dañ doon xool loi ak règlement yi nga xam ne moom lañ fi daan teg. adduna bi yëpp dañu doon bàkkoo ci loolu. léegi dañuy réer. Mhm. dañuy parce que li ma dégg nii quand c'est le gouverneur de Thiès avec le gouverneur de Dakar ils ñoo d'accord pour faire un prolongement. Mhm. c'est un point d'interrogation est-ce que yoon maye na ko. Mhm. jar nañ ko leeral. ministre bi est-ce que moo ko avalisé war nañ ko yoolal yoo war nañ euh, président de la république lui qui ci lu ciy xalaatam war nañ ko leeral parce qu'il faut que mu génn wax. ñu xam li xew lu mu doon couvre-feu bi nit ñi sonn nañu dëkk bii du dëkkub tubaab dëkku lijjanti la ñi ci nekk ñépp bëccëg lañuy ñuy lijjanti wala ñuy guddi la jóg di lijjanti nit ñi lekkatuñu naanatuñu fajootuñu feebar bi def na tooxi doona bu rëy ci dëkk bi mhm. ku ne sonn nga ku ne jaaxle nga mhm. ñu bëgg a continuer waat bi mhm. kenn xamul kañ lay jeex te lii baaxut gouvernement bi amul ben appui bi mu def vis-à-vis des populations. Mhm. amul ben appui bi mu def vis-à-vis des écoles. Mhm. gis nga ni barki dem ñongi wax ci école yi nii seen thermoflash amatu fa. dëgg la euh, masque amatu fa. gel amatu fa. c'est inconcevable lolu warul meuna nek ak liñ fi dégagé ci xaliss yépp ni dañ koy dugal ci mbass mi. Mhm. lolu dem ba loolu man dugg naa ci ben dispensaire machine bañ fa tegoon nit ñi ci raxoso yaquna na ba defi sel. Ah et c'est dans c'est dans un dispensaire. kon ñeneen ñi nu ñuy def. kenn xamul kenn raxasootul kenn jëlatul gel kenn jëlatul masque da ngay topp nit ñi sonal leen pour ñu takk seen masque. Mm. nit ñi amatuñu benn respect ci feebar bi. nañu ko nangu te vivre moom.

da ngay gis policiers yi di dàqeeg nit ñi nit ñi dafa mel ni couvre-feu bi safatu leen. Mm-hmm. mais c' est inadmissible qu' on arrive à ce stade là. papa ma dooli la hmm? sax ndax man li ma xaw a jaaxal mooy que ne euh, couvre-feu bi 12 jours yi amoon nañ yaakaar ne na peut-être bu jeexee mu wàññeeku mais man dama gis ne cas yi dañoo gën a yokku cas yi dañoo gën a yokku wàññeekuwul benn yoon kon est jaroon na ñuy def couvre-feu. Je ah, xam nga kilifa bu xasse wax. Mhm. mais la décision finale revient au président de la République. Mhm. et à son gouvernement. wax ci xex ci qui, ci mer ki sa bop du tax mom mu lijeenti ko. Mhm. la mu bëgg rek lay def mais mom war na ko ni 12 jours yi ñu couvre-feu. compliqué notre trop. compliqué notre trop. Et véritablement, on a des hommes de science très valeureux. On a des gens qui peuvent régler la situation. 1000 mm. milliards, ils nous dégagent bu ñu faboon 500 milliards yi dugal ko dans les corps de santé. feebar bi jeex na. 500 milliards bu ñu ko dugaloon foofu feebar bi jeex mais jëndub ceeb jënd diwlin fabi oto dugal fii dugal ay bateau lu ne nga def ci te nit ñi ko wara am amuñu ko. ñi ci war bénéficier bénéficier ci. fii rek lay doon cacophonie lay doon. gouverneur jël na décision est-ce que war na ko jël ministre bi moo avalisé est-ce que non la demee. Mhm. président de la république a ngi ni tekk kenn xamut ci lu bëgg ak lu bañ kenn xamut nu mu demee. alors que moom devait se mettre au devant de la situation mhm. du yoon du yoon waye nag kilifa bu waxe ken mënu ci dal on se conforme à ce qu'il a dit mhm. bon an mal an neex na neexut dañ ciy ànd ak moom mhm. yàlla na fi yalla def jam amin ya yàlla na fi yalla def jam papa ji waxe rek euh, dañuy top ci ginaawam la lu mu def ñu xam lool la papa mu bàyyi la nga tagoto amoon kontaan lool nak dalalon la bokkoon yow plateau bi ah, lool de sante la bu baax sante la bu baax yow toog ak yow sax da neex <laughs> toog ak yow mom neex na lool vraiment sante na bu baax lii moom yal na ko yàlla saxal yal na la yàlla bàyyi ci sa place nga am fi ay xéewal yu bëri ak ñi nga àndal yépp di def seen émission yi yal na ko yàlla def te ngeen am ci ndam bu koy waa ñoo ngi góorgóorlu xale yaa ngi góor góorlu bu baax mm-hmm. ñi ñom ku leen gis xamni seen kër gi yalla na yalla def mu jëm kanam bu baaxa baax yalla def fi teranga ak lepp sant na de gëreum na bu baax parce que sant na parce que ni nga toogeek man waxtaan ak man mm. ci teggin yu mel mm. kontaan ci trop xalé yu mel ni yow moom tut waaye yalla na yalla def jamm bu baax émission bi jëm kanam mm-hmm, ñun ñepp ñu bokk ko mu doon sunu ñariñ ñi ko wara dégg nak faj aajo yi nga xamni ne ko fiy wax mm-hmm. yalla na ag ci seen nopp ñu dal ci nopp bu baax ba nga xamni liñ ci tax ñu tok fi di wax demu naqar ñu lépp loolu ñu mën ko faj ci jàmm ak salaam te yal na yàlla def jàmm comme ni ko sam papa waxee rek euh, kontaan loolu dalal loon ko ndax moom mag la waaye mag boo xamante ne nii daf ñoo jël ñu ñëpp njaboote ñu di lay sant di la gërëm di la ñaan a gudd fan amin euh, di leen jox dig daje beneen yoon ci seen émission li ci net bi fii ci Fekh TV